nekk pays nekk pays alors mbokk internet di di télé Sénégal encore une fois kuñ fi dalal tey mooy Samba Sine alias Kouthia comme ni gisee waxtaan bi na ñoo ngi si ba léegi dans votre émission euh, une heure ba léegi te dañuy dañuy waxtaan dañuy àggali rek si biir euh, TFM boobu ñu nekkoon wax nga ko sànq euh, bu fekkoon ni ñu nga débuté ndoo ñoom nga fa bàyyi tey dina la manqué mais tey dafa am ñeen ñu bees ñu fa ñëw temps yi coow lu bëri trop trop trop euh, bi TFM nga gis yenn journalistes sax dañuy génn di critiquer euh, maanaam ki nga xam ne ni peut-être mën nañu wax ne moo seen diit muy euh, Bouba Ndour si relation yi ñaar lan la woon ak yow pourquoi nga jàpp ne lan moo tax à chaque fois di critiquer di ko à chaque fois moom. Ah, mais man lu ma ci mun a sori parce que kenn ku nekk li la fa jëlee yow yaa ko xam mais man sama kaar laa mun a focus donc xëy na am na yoo xam ne duma ko fekkee. wala ay ay euh, euh, ay humeur la yoo xam ne yu tax ñoom ñu fay jóge wala ay problème la yoo xam ne yu tax ñu fay jóge mais euh, question boobu bu fekkoon ne si sama cas moom wax dëgg yàlla man dama naan xëy na sama wërsëg moo fa jeex rek te ni fa jeexee mënoon na fa jeexee neneen lu rafet. du la ni fa jeexee. parce parce que tamit boo nekkee fenn def fa plus de quinze ans. Mhm. seize ans. loolu sa seconde famille la. parce que temps bi ngay passé. ci groupe bi mooy ëpp fuuf temps bi ngay passé ak sa famille. parce que tu quittes chez toi à huit heures tu es là dans la télé wala ci rajo bi. ba ay seize heures dix huit heures nga quitté pour rejoindre sa kër presque ay dix neuf heures vingt heures donc peu de temps bi ngay am passé ko sa famille du lundi au vendredi du lundi au samedi. mooy ëpp que ngay toog ak sa njaboot. donc da nga fa yàgg familiariser ay nit xamante fa ay nit mu nekk routine boo xam ne mais boo gëmmee sax ñu takk sa bët mu nga jóge sa kër dem liggéey. ndax bi. donc aussi euh, mu nekkoon terrain nu. yow ñu jël nga nekk une bon graine jëmbat sa bopp ba sax. ba génn ay ñam ñeneen ñëw daal di koy wicc. te yow mi nga xam ne yow yow yaay borom tool bi yaay mango bi. yaa mhm. jur say say say say meññeef mhm. lekkoo ci. maanaam li nga ciy lekk ña toogoon fa ne naan tool bii du dox. wala est-ce que dana dem ñoo ci ñëw jëriñoo donc li ci am solo moom mooy euh, dafa am façon boo xam ne bu ko yàlla boo ko xoolee ci côté spirituel man damay xam ne ne ndogal la boo xam ne dafa jaar ci man te falee man nangu ko parce que ku xool tey àddina ni mu demee nii. xam ne yàlla léegi mooy wa mooy wàcce rek la yenn problème yi. waaw nit moom euh, d'accord ni mu jeexee. Euh, neexuma parce que kenn bu kenn kenn duñ teg nattu nga ne nattu bi neex na ma waaye yàlla bu la tegee nattu da ngay ñaan mu oyofal la ko ba nga traversé ko dem si ngay mën a xam ndax fa nga nekkoon euh, looy rëccu la wala fi nga nekk euh, looy sant la waaw mais ñun wax dëgg yàlla li ñuy rëccu na peut-être ni mu jeexee mm-hmm. ñu ngi sant mm-hmm. wax dëgg yàlla ba ñu fa génnee mm-hmm. ndax lu tax mooy fa ñu nekkoon ba tey ñu ngi fa dégguñu ci ay coow yoo xam ne naka sa du noonu waaye tamit yàlla dimbali nañu wax dëgg yàlla Euh, kenn gisugul ñu ne. sauver Kouthia il meurt de faim. Mhm. d' accord mais bu ñu déggee bu ñu gisee Kouthia di wax dañuy sentir ne que ni euh, wax nga ko sànq lu la gën lu si gën a métti wala lu si gën a marqué mooy euh, nga liggéey liggéey boo xam ne nii commencement mën nañu wax ba mu fa àgg fii TFM jugé nga si à cinquante pour cent moom tey jii fu mu neexee Kouthia foofu la génnee. est-ce que bokk na si nga xam ne dafa la métti trop trop si génn TFM. non non non pas dama ko teg ci côté kii rek mais dama na am na leen noo xam ne moo gënoon euh, mënoon na gën a rafet parce que koo xam ne yow dafa nekk ak yow yàgg ak yow am na loo xam ne balaa ngay jël décision da nga ko war a protéger. Mm-hmm. parce que am na ay corps d'enseignants yoo xam ne boo ci laalee kenn ñoom du ñu sax xam mais dañu ñëw protéger ko ba pare. Mm-hmm. soo ko lijjanti. mais je pense que y un moment am loo xam ne dafa xew. te c'était lu privé entre yow ak sa jabar ñu jël ko utiliser ko sukkandiku ci pour dàq la ci loo xam ne amuñ ci dara te bañ demee tribunal tribunal dafa àtte yàlla jox ma dëgg parce que euh, yàlla dafa àtte ci ay façon yu bëri parce que affaire audio la ci diggante bi bi mu fi bàyyee mhm. ay audio dugg na foofu yàlla jaar la ay audio ci ñi nga xam ne ñoo ñoo ko doon doxal mhm. wala ne bu dee ojo moo tax ngeen dàq diw ay ojo ngi nii mhm. ci fii ci famille bi wala ci lii. waaw léegi nag lu tax lii demul léegi nii donc nit il faut nga xam ne euh, xëy na euh, lii mooy li gën ci man moo tax du ma fi nekk di rëccu. Mhm. ndax xëy na yàlla moo xon nii lay demee mais dama ne ñoom ni ko doxale ñoom. Mhm. mënoon naa gën a rafet parce que am na ñu fa dem dem bu rafet ñu fa bàyyi bàyyi bu rafet ñoo xam ne kenn yëgu leen dans le des de l'ombre mhm. des gens aussi yu yu affiché wu. te amul euh, benn gaañ-gaañ. mais pourquoi moi xëy na. côté euh, nattu spirituel yàlla moo ko moo ko tegoon mais dama gis ne nett bi waroon na gën a mën a rafet maanaam tey mënoon naa ci gis ñoom te ku ma ci gis tamit wax dëgg yàlla j'ai pas honte de te regarder parce que daw ma benn mooy euh, bettuñu ma ci jabaru jàmbur mm-hmm. bettuñu ma man ak góor mm-hmm. ñu ma foo xam ne dañu ma gis ñu ne eh fii de Kouthia du yoon muy fi dugg. loolu moo mënoon tax xëy na ma génn dëkk bi. est-ce que say say say say collègues la bi nga xam ne nii def waroon nañ ko taxawee le fait que dégg nañ si ay ñu ne am ñoo xam ne dem nañ ba ni euh, Kouthia bu bu desuwaatee si télé bi dañuy bàyyi dañuy génn télé bi. waaw waaw mais ñoom ñoom ñoom loolu xëy na seen réaction la rek ñoom ñoo koy defee noonu mais y a des y yoo xam ne dañ lay woo massawu la. Mhm. woo la téléphone lii de buñ ñu sañoon du demee nii mais. amul benn problème mais am na ñoo xam ne tamit dinañ xam ne ah kon ndekete comme que ñii ñoo mën a def lii Kouthia mm-hmm. te Kouthia a yàgg mm-hmm. kon ñun nañ def sa tension ñu ranger ko def parce que ñoom siiwuñu xamuñu leen Kouthia dafa siiw ñëpp mm-hmm. moom mi siiwul te kenn xamu ko lu mel nii war a lu jege lii bu ko dalee bi yow mu dem ay bagages am a xaar ndax dañ koy dàq le fait que ñu def plateau spécial laa ko mën a tuddee euh, di tontuwaale ñu gis benn plateau boo xam ne gis nañ si Pape Cheikh Diallo Viviane euh, toog mais ni kuy tontu Sénégal ba jàpp na ñoom ñëpp xam nañ ni maanaam émission boobu pour tontu woon. waaw ko saa defoon gis Pape Cheikh Diallo di wax fii ñii di wax fii Viviane di wax fii. war na yàlla seetaan ma ko. <laughs> saa noo ko may dégg nga ay dégg lu ñu wax. mais da xam nga am na ñoo xam ne peut-être dañ may woo ne ma saa lii après man damay dugg ci leneen quoi. parce que xam nga ki commentaire exemple ki commentaire. Mhm. wax la wax ju ñaaw moom commentaire na ba pare fàtte ko de. Mhm. day dem añi yow mi ko liir. mu ñaaw ci yow mun na laa tere bañ añ fekk moom añ na. donc man du ma liir commentaire du ma xool loo xam ne wax dëgg yàlla dañ ma koy nettali sax mu mu may vexé. Mhm. mais wax dëgg yàlla ñoom xëy na loolu lu jàll la waaye man teguma sama bët. et puis euh, mu nit di ma ko expliquer carrément parce que boo démarré rek damay xam fa nga jëm. Euh, dama lay wax rek ne est-ce que mës naa am benn prix nga woo ma ne ma sa prix bi di kër kër donc est-ce que tey normal na nga dégg ñu wax safaan ci man nga may woo di ma laaj ndax dégg nga gars yi li ñu wax mhm. man foofu laay wax rek nga dagg. est-ce que affaire yi musique si bokkoon parce que dañuy dégg naa TFM boo amul gàllaaj doo fa yàgg ñi ne musique bi dafa bëri alors lan la woon dem ne sax ba naan Kouthia euh, bu doon def affaire de lamb di sotti ay saafara dafa jaar pour sotti ay saafara yu mel noonu est yëpp si la non mais parce que wax ñu bëri naan nga fa télé boo xam ne ñëpp bëgg nañ fa dugg mais boo amul gàllaaj dëgg doo fa nekk non loolu ay wax la rek xam nga euh, tey li lay wan ni champ politique bi du ay gàllaaj moo fiy téye nit parce que possibilité bi yenn président yi am tey mhm. pour dem ci les plus grands marabouts du monde pour maintenir seen pouvoir ça veut dire loolu tey ku ko doon def tamit da ngay échec parce que am na loo xam ne ndogalu yàlla bu jotee rek dafay jot. man gëwuma ay mystique yooyu ñuy wax ne dama ko doon def ñooñu xëy na c'est des gens qui ont parlé au début de l'affaire rek pour se faire voir récompensé wala ñu monter leen pour gën a aggraver sama cas. mais tout ce que je faisais dama ko doon def ci dans la discrétion. ndox laa doon ak ay fleurs nekk foofu jàmm ko parce que c'était juste pour indi arène mooy li ma wax sànq rek. pour kii seetaan. ne mais Kouthia combat Balla Gaye ak Eumeu bii. Mhm. fexe na ba dugal ko ci biir TFM ut saaku ut suuf ut sëriñ ut mhm. lépp di sotteeku. Mhm. mais man sama xam-xam ak sama euh, sama don yàlla. moo fa téye nit ñi mais du ay affaire mystique. parce que duggee moo fa mystique naturellement laa fa duggee. kon lan moom fa la tax may maintenir sama bopp foofu mystiquement. waaw yow mais dañ ñoom dañ jàpp ni TFM ñëpp ñëpp lay wax. est-ce que mus na la dal si yow yi gis non wax dëgg yàlla man jaaxal wala feneen non man wax dëgg yàlla wax dëgg may wax dëgg rek te yàlla tax quoi sérieusement parler pour dire vrai mhm. euh, gaw ma ne euh, yooyu euh, am na fa am déet xëy na lu am rek yàlla mooy dogal mu ñëw mais guerre mystique bi moom gars yi dañu koy wax rek mais man mosuma ci teg sama bët parce que tamit damay wax loo xam ne bon gis naa diw war a fekk naa fa lii wara a moytu lii kërëb kërëb de non non non. essentiel parce que tamit déggoon nga benn bis sax yaa ngi soos naan man lu may fay lii ak lu ñuy fay diw bokkul instant yi tamit ñoo ngi dégg ñu naan fu mu taw ni TFM euh, commencé na am ay problème am ñoo xam ne fay koo guñ na nga depuis ba nga génnee ba léegi nag loolu dafa am est-ce que Kouthia sponsor yi nga xam ne ni moom pour indi ñoo ñëpp dañoo delluwaat ginnaaw bàyyi TFM loolu moo tax loolu yëpp am wala mu demee noonu ba problème salaire commencé am foofu TFM ah man de wax dëgg yàlla xaw ma ndax ñuy fayeku normal wala fayekuñu normal parce que man euh, nee naa la sama xarit yi fa amoon yëpp ñi nga xam ne ñoom laa fa nekk doon coloré ñi nga xam ne ñoom peut-être boo doon bu ñu waxtaan ak yow dañ dugg ci ne ah sa waay weeru fay kenn wàll gi yëpp nekk dañoo nekk arrêté wala ñu def leneen wala ñoo xam ne gisatuma leen quoi. Mm-hmm. donc euh, euh, comme que loolu dafa nekk sama ginnaaw du ma du ma du ma yéene loolu mu nekk mu dal leen parce que bëgguñu tamit ñu def ay alibi par rapport ak loolu. Mm-hmm. donc. Euh, damay wax rek ne lu am rek yàlla la ko dogal xëy na tamit euh, ci ndogalu yàlla yi loolu daf ciy bokk étape la de de vie parce que mun na nekk loo xam ne boo ko paasee. Mhm. après yàlla mun na la ibil leneen yaay xool lépp ci gestion la rek quoi. Mhm. gestion ak euh, management. Mhm. parce que télé moom dafa war a am euh, management bu dëgër. ak liberté de penser et de faire. sans mu am yenn blocage yi donc loolu mooy tax mu mun a avancer donc je pense que ne. Euh, situation boobu fekkee suñu situation réelle man lu ma leen ko parce que kenn ku nekk xam naa toog war a jot xaalis jotoo ko nu mu def. Mhm. ndax toog naa lu yàgg yàgg bi ñu ma dàqee. Mhm. lu yàgg yàgg yàgg aw ma benn revenu boo xam ne mun naa ci faj sama kon xam naa toog benn fan rek mu ñàkk xaalis. Mhm. lan la lay indi ak suma ko toog liggéey ba weer dee. war a fayeku mu am ay tolof tolof ñaanuñu ko yàlla benn société parce que ñi fay liggéey. ñi fay liggéey ay jàmbur nañu yoo xam ne dañoo yor seen famille yor seen njaboot ñooñu doo leen ko yéene. parce que say xarit nañu. xëy na ñu ko ŋànk ñoom mun nañu am salaire di fayeeku ñu jëg waaye emplois yi nga xam ne yaa ngi ñoom emploi lambda yi ci ñu nga bokk doo leen yéene mukk ñu toog bañ a fayeeku te loolu bu fekkee lu am la maa ngi ñaan yàlla euh, jàppale leen ba ñu génn situation boobu bu dee prox ndol la ñu gaaw ci génn bis dina ñëw ñu xaaraat Kouthia bi TFM wala